jëlee nañ ci abi hurayrata yàll na ko yàlla gëram mu jëlee ci yonent bi salallahu alayhi wa sallama mu wax ni niki mbokk aw tur la ci turu yàlla bii di yërmande yàlla wax ni képp ku jokk sa mbokk ma jokk ko ci sama yërmande waaye képp ku dagg ak mbokkam ma dagg ko ci sama yërmande xadis bi bouxaari yu moo ko soloo